bis ba dajee jamxaani ñaari mbooloo ya al muslimuna wal kufaar mbooloom julit ak mbooloom yéefar mooy bis boobu wallaahu bur yàlla xadirun mën na ala kulli seen ci lépp lépp yàlla mën na leen a dimbali ci dana leen dimbali ca badar nee na is muy badal ca yow ma ji yow muy bis boobu mooy is mooy ba nga xamee ni mooy bis ba nga xam ni dafa badal ca yow ma ji antum yéen bil huddooti yéen a nga ca booru xur wa booru xur nag mooy aw tund moom la wolof di wax tund yéen a nga ca booru xur wa moo tax ñu koy firee tund yéen a nga ca booru xur wa jaanibul waadi yéen a nga ca buuro buur bu booru xur wa duniyaa wa jegañ madina duniyaa moo di maana ci adduna dañu jàngoon ca saaru laraas ba ñu bëgg a yegg si wa na tàq na jabala adduna jooju moo di góoreelu dunya dunya moo di njigéenal bi suuf la dunya da gën a jege gën a jege madina foofa ngeen ñëpp wow moom seen noonu ya mooy noonu ya nag ñoom itam bil uddootu ña nga ca booru xurwa ca tund wa xuswa wa sori makka yéen a gën a jege Madina ñoom it sori nañu Makka Xuswa moom itam moo ko dunya ñooyam mooy njigéen na rek Aqsa aleykum salaam mooy njigéen na rek Aqsa Aqsa maana fil Aqsa Xuswa wa gën a sori nag warat bu gawar ga arab li muy wax rakk bi mooy ku war gëléem du ko wax kuy dox du ko wax ku war fes lu gën a bari lu mu gën a not ku war gëléem bu nee rakk bi rek ku war gëléem la ku war gëléem la taarif nag mooy ku war fes rakk bu te gawar ga muy Abu Sufyaan ak ñi mu àndal booba ña nga jógee saam yor lëf ci alal asfala ñoo gën a suufe fa féetee géej gi min kum ci yéen ñu naa yolli baxara ñu nga ci seen suuf ci booru xurwa xawli ci biir xurwa ñoom ñu nga foofa di dox yàlla nee na noonu yaa ngi dox fii yéen jullit ñi yéen tam yéen a ngi dox fii te kenn gisut sa morom te seen diggante mu ngi mel ne boo sànnee rek mu dal seen diggante ay mètre rek lañ ko mën a calculer du sax ay kilomètre te kenn du sa morom yàlla nee na walaw tawaaxattum te ñoo ñoo bokk fu ñu jëm nee na doonte gise woon ngeen walaw tawaaxattum doonte gise woon ngeen ba daalante moo tax mu ne walaw tawaaxattum doonte daalante woon ngeen aha ba ñuy daalante dañuy gise jëkk mu bàyyi gise jën ak indi rek walaw tawaaxattum bu ngeen gise woon ne ku suuf walaw tawaaxattum waaw bala ñuy daalante gise doonte daalante woon ngeen antum wa nasir lil qitaali ngeen daalante pour xeex bu ngeen daalante woon de laxtaratum da ngeen war fi ñaari moo tax kaan yi ñaari yooyu dañ koy duñ ko dagg saraay rek mool yi ñoo koy dog waaw waaw waaye miyaadi gi te innaka laa toxliful miyaad ci aali imraan mooy dog mooy dog kii du dog ndax kooka li tax muy dog wax yàlla yàlla li mu wax dagg na dog na du dañ ñii nag wala tawaatum laxtalatum seen wax wóorul moo tax dogul waaw ñii rek moo dog wax jee wóoru laxtalatum fi naa di def ci woon dañuy war waaw dogul du dog moo di yëpp koy dog waaw moo di yëpp koy dog waaye fekk na suñu mën jate alxuraan moom dem ba dog force bi ndax kàlla suñu biir la. nga ne kàlla bi suñu biir bu xonq.
waaw tuuse ci sa ko daal di wax.
waaw yooyu yëpp ay xikma la alxuraan dafa doy waar leeral miyaa ji dogul moo tax nga di def tomb sax ba boobu ci miyaa bi yàlla nee na walakin lu fi nekk lu tax li yàqalee ngir na atte laal bur yàlla am ran mbir ñi mu nar a atte kaana mbir moo xam ne nekk na mafoolam bi la ñuy atte bu yàgg ci xam-xamu yàlla te mooy dimbali jullit ñi toroxal yéefar yi li ñuy atte mooy lan li ñu la ko ngir na alak man ka nga xam ne xalaka dafa alak ba noppi an bayyinatin ah bax da bayyinatin an ji place bax da la tooge an bayyinatin ci aw lay ci gannaaw aw lay gannaaw bi yàlla ju waxee dëgg ba pare nag mu kontar wa yaxya dana gën dana gën man ka nga xam ni xaye dafa gën an bayyinatin ci gannaaw aw lay gannaaw bi alxuraan wàccee wal na laa nit bir yàlla la seenun aju dégg la alimun aju xam la uskur fàttalikul is yurikahum waxtu ba nga xam ne ne won na leen laaw bur yàlla ci mën naa ñu ko yonent bi dafa gis ci biir ngelawam waaye tam yonent bi ak ñoom nag ah ñoo bokk ay kii maanaam amuñ amuñu ab wute is yurikum laaw fi mën naa ñu ko ci say nelaw xalilan lu néew yàlla won na won ko ne ko yéene leen di not walaw araakahum doonte gisoon nañu leen kasiran lu ngeen di bari la fasirtum kon da ngeen tiit walaw araakahum doonte gisoon nañu noon ya kasiran ñu bari wante nag yonent bi yàlla da koo won te ñoom ñoomu bokk ay mbir yàlla won ko ñu néew lool toll ci ay ñetti téeméer ak ñeenti téeméer te xam ne moom nag ñu junni waaye ci biir gént bi nag ci biir nelawam mu gis lu tuuti yàlla lu tuuti la ko woon moo tax mu ne ko walaw araakam boo boo leen gisoon kasiran nañu day dëgg dëgg kasiran seen bare ga kasiran nañu bare la fasul tam kon ngeen tiit waaye nag gisul nañu bare gisul nañu bare te kon war a tanaasaa kon da ngeen xëccoonte ngeen wuute seen amri seen wuute dañuy xeex rek dañuy coow naa fekk yaa nga naan ñii de war noo dem di leen somb walakin li fi ne laa yàlla salama yàlla def na jàmm salama musal na leen ci xeex ak xëccoo foofu la salama di jëm musal na leen minel fasali wa tannaasum minel fasali wa tannaasum yàlla musal na leen ci xëccoo ak càqalikoo ak xeex innahu ni fi moom yàlla alimun xam na parce que xam na li xew yàlla xam na li xew xam na li saa si dóori la jaxasoo xol ya xam nga xol ñu ngi ci dënn la jaxasoo xol ya ci gëm yàlla wala la jaxasoo xol ya ci naafiq wala la jaxasoo xol ya ci kéefër yàlla nee na xam na la jaxasoo xol ya àllam bi saat si dóor moo tax ñu di ko firee góoti xol yi sekkare xol la sekkare xol la wis yuri kawumoo wis yuri kumoohum ndem woon na leen yéen way gëm yàlla isal tàqaytum ndem daje ngeen fi ayunikum ci seeni bët yéen jullit ñi ngeen daje ñoom ci seeni bët xalilan ngeen néew lool naaw sax yi na wala téeméer mel na juróom-ñaar fukki noon lañu te fekk junni lañu moo tax mu ne riis yuriku moom ba leen yàlla wone yéen bi ñi asir càqatin ba ngeen dajee te ndax lii la ñu néew lool ñoom noon yi te ayu nekkum ci seeni bët yéen yéefar yi
maanaam jullit ñeer wan la yàlla wan.
waaw néew yéen a néew nañu waaw. toll ci juróom-ñaar fukki nit wala téeméeri nit. moo tax mu ni ngeen usriikumuuhum comme gën nga dellu ci yéen a yéen. yéen jullit yi ñu toll ci juróom-ñaar fukki noonu. mel ne juróom-ñaar fukki noonu la ñu wala téeméer te xam ne kat dund la ñu. loolu lépp ah. collectif bu guerre la collectif bu guerre la nee na yéen it wa yuqaalu lakum ñu néewal ñu yéen judi yéen tam ñun ni yàlla néewal leen fi ayunihim ca bëti noon ya waaw ñu néew na ci ñoom ñu ñu ñu ku ci nekk naan sa borom seede dara néew dara néew ah moo tax mu ne fi saaro imran i aali imran ndi mislahum kama fi aali imran li yàq lee yàlla lu tax mu néewal ñii ci ñoom néewal ñee ci ñee li yàq lee ngir na nam ma atte laa bëri yàlla amarum mbir nar naa atte mbirum xeex kenn ku nekk am na sa kawar def ci sa bopp morom daf ka sa kawar kër kaana nekk na ma xooloon di li ñuy def yàlla nee na wattu jow def na delloo nag moo doon mbir yi ilallaay jëm ci yàlla ma ne kenn ku nekk ndagg na ci sa kawar def ci sa bopp kër loolu ne daan boole ay na waaw jaxasale masala lu yàlla bu ne daal yàpp sa morom yaa la fi naa mënoo yéen gëm ñi yéen ñi gëm ne yàlla am na isa laqitum dem daje ngeen ak fi atal mbooloo fi atal mbooloo mu yéefar yéen jullit ñi fas bu too sax leen ca xeex de laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah su na ngeen sikkat nag waskuree te ngeen fàttaliku laa yàlla kase na lu bari maanaam ñaan leen nag ñaan leen udd foofu bi nasri ñaan leen yàlla ci ndimbal da ngeen ci tur yàlla war a kan kenn du leen dàq raskurullah kasiran raskurullah kasiran raskurullah kasiran ñaan leen yàlla nee na ñaan leen ñaan leen dimbal laalakum kon yéen tubloon ak ngeen texe waa tuma topp leen laa yàlla wa rasuloo yonent yi te nag wala tànnasoo bu leen wóote bu leen xëccoo bu ngeen xëccoo day fa tafsaloo wala tànnasoo bu leen xëccoo in tànnasoo fa tafsaloo bu ngeen xëccoo day da ngeen di teqale kon da ngeen di ragal moo ci indi faabi faabi kenn sañ ko asal waaw saw jawab te tafsalo bu ngeen teqale koo day fa tafsalo te day kon day wa tashaba da ngay dafay dem ruyukum seen kattan dawlatukum maanaam ruyukum seen kattan xuwatukum wasbiru mu ngi leen inna laa ni fi bur yàlla ma saabirina ndimbalal yàlla inna nasrallahi ma saabirina ànd ak yow mu ngi mu daa mu ni inna laa ma saabirina ndimbal la may ànd ak yow wala takoonu bu leen nekk këll si ne naka noonu yi nga xam ne ñoom abbo jaxlin xarajoo ñoom génn nañu min diyaaram ci seen kër ya bataroon ñu ngay fuukarewu wóoree ay naa si gistal gistal nit ñi ñu ngi andi jigéen ñi ñu ñu fëgg tabala naan sàngara lakk ci yàpp gële nii lekk ba rek di tolk di tolk dooy rek wóoree ay naa si kenn ku ci nekk di yëngal naan nañu sàngara lekk nañu yàpp gëleem jigéen ñaa jigéen ñaa ngi woy ndax sàngara si dafay sàngara si soppi na seen xel sàngara saa ñu tàcc seen diggante di ko xool ak boo joxe leen nañu indi sàngara si tàcc ko ci digg bi ñëpp di ko gis bu ngeen dee tànk mu di leen gis ngeen di ñu jox ñuy gis te bu ngeen ne dee jox da ngeen ne wax ni am sàngara si ah mooy dolli cafe bi moo koy dolli moo tax abonuwaas ba muy jox sangam ba di ko jox sàngara mu woy sanga ba woy ñu ko allah tas xel yi xamran ah jox na sàngara yi fa qul lii hiya alxamru wala tasxini sirran bisa am kanal jaxru boo may jox sàngara si na nga mën a am sàngara si waaye bul mën a am rek na pat xaw ma li ngay naan lu mu doon wala tasxini xamru fa qul li iyal xamru wala tasxini sirran bisa am kanal jaxru
te tey la jox am sa kaat ah am sa kaat gaayam naan nag waye su doon ñu segu an sabilillahi bàyyi fa yoonu yàlla wala bu yàlla muy tim peeg na lépp nga amaloon na ca la ñuy def wala bi maa tàmmaloon ci lu ngeen di def nee na wat pour fàttalikul istayaana waxtu war a fàttalee seytaane seytaane law ñeel leen iblis seytaane iblis law ñeel leen mu rafetal am maaloom seeni jëf na leen jëf yi rafet na wa xaala mu ne laa xaaliba deetul not de kenn du leen duma de laa xaaliba deetul not la comme ña leen alyoma tey kenn du leen mënal dara mi ne naag si nit ñi way ni naka man jaarun aju daw laa pen koog soowu mbay joor ak càmmooy daa nga bay koog kanaana ah la comme ña leen danaa leen dimbali de wa kaana atta mu ñëw leen nag ci melo suraxata ibnu malik bala naa talaata ba nga xamee ni gisante na nag fi attaani ñaari kuréel ya kuréel ci jullit ak bu yéefag te mala ay malaayika rax ca kuréelu kuréelu jullit ya fekk na loxo mi ngi mu teg ci loxoy arsu bin isam di waxtaan ak moom loxo mi ngi mu teg ci loxo arsu ibn hakim ibn isam wa yadde fi yadde arsu ibn isam waaye dafa daal ne roccet loxoom naka sa mu daal di daw dem allah ak bay dellu ca tànkam ya woon xaare ban wax xaala mu ni ñu ni naka man de bëriwul génn naa min kum ci yéen de génn naa ci yéen ndax ñu naka man ara gis naa maa laa tara maa laa taraw na lu ngeen gisul de moom gis na malaayka yi te xam na leen ñu naka man man sax iblis axaafu ragal naa laaxa yàlla mu alag na naa xaafu laa ragal naa yàlla mu alag na ah ndax yàlla iblis nee na yàlla wallaahu yàlla sadid iqaab bu tarum mbugal la xam na ci dara de xam na ci dara mooy is yaqulu ba tey ci la badal waxtu boo waxee mun naa fexoon na naa feqee loolu si nag ñi nga xam ni fi qulubin nekk na ci seen biir xol yi jaxasoo na ci maralum feebaru pas-pas pas-pas bu feebar xool ya dara jotu ko ci wàllu mutin waaye nag pas-pas ba moo feebar pas-pas baa feebar xarrawum xarra war na kon xaawlaay ñii jullit ñi le naafeqe ñu ne daal jullit ñi xarra war na xaawlaay ñii génn wuñ seen diine ji ñii kat seen diine ji war na leen bi ñu génneeg seen néew ji ñu néew am ñu benn majorité bëgg a song mbooloo mu bari ñii ñii kat xara xaaw laay diine ñun seen diine gi war na leen de yàlla nee na wax na tawakkal ku wakkilu na mu àlla lay ci yàlla fay na laay ni ki bur yàlla ay sun ku not la ak ñu ko àtteeg dëgg la ku wakkilu fi yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dana la nangol li nga bëgg wala tara doon te gisoon nga yow yonent bi uya taafa yéefar yooyu ba nga xam ne ma ngi leen di faat ñu dee mu jël seen ruu lësi na ñi nga xam ne kafaroot nañ malaayka te malaayka yi di leen faat yadri boona ña mbir moom yadri boona mbir moom ña nga leen di dóor ña ngay dóor wu jëwum seen kanam ñu ngay dóor yar ci seen kanam waa di baarum di leen dóor baldo yeñ di leen dóor itam ci seen gannaaw di leen dóor baldo yeñ wa yaquluna boole ko ñu di leen wax naan soo ko mos leen asaabal ariqi mbugal mu tàng mi des ñu nag ci àllaaxira ñu ne yonente yi boo gisoon loolu de la waray te boo gisoon loolu kon da nga gis da nga gis de am ren mbir asi man mu rëy saalika googi mbugal yonente yi de bi maa mooy la nga xam ne xaddamat dóor nga sa doom ñu ne lu mu def nga ne moo def nangam bi maa xaddamat sabab la nga xam ne def na ko ay dikum seen loxo ya seeni loxo ndax lu gën a bari ci doomu aadama loxoom du toog la nga xam ne def na ko ay diikum seeni loxo loxo du toog mukk loxo loxo soo ko fekk doomu aadama rek lu muy def loxo bi muy laal fi wala muy laal fi moo tax lu bari yàlla da ko misaal ci loxo mas dama fekk benn conférence ka yoroon teemu conférence ba di ko wax am ke benn waaye bu jàng tubaab jàngu arabam sax soriwul waaye dafa am ay leader ci ak tey l'islam yoo xam ne da koy jàng ci France ndax dañoo am ay leader yoo xam ne dañ koy bind mu laaj ko seen laaj bu jafe nag laaj bu cher a cher a cher a cher waaye daal kii ki xam ko mu ni laaj yi waa ji laaj su ko ci xam may naa la ndox booba daf ko ni lu tax cër yëpp amu ci benn buy laal njàpp toj lu dul loxo loxo rek la téere yi wax ni boo ko laalee foofu nga koy laal sa njàpp day yàqu lu tax cër yi ci des nag mu ne waa ji laaj nga laajoon maa ngi lay laaj ci biir laaj bi laaj bi ma lay laaj ci biir laaj bi nag mooy tontu li dama lay laaj ana ban cër mooy laal bu dul loxo ah ban cër mooy laal bu dul loxo ah moom rek ah ma ne ko loxo rek moo tax Abdou Hanifa te wax ci loxo li mu wax ci loxo yow wàllu sëy loxo dafa am bànneex der bu xonq bi dafa am bànneex mooy action pay mooy secrétaire am moom lay yónni su ko yónnee dara xew la kenn waxul dara rek mu jóg loxo noonu la ah mooy ak seen moo tax suñ borom dafa rëdd wax seeni loxo la nga xam ne def na ko seeni loxo ndax loxo dafa lépp waaye nag moom la moom la ñuy misaale seeni loxo ndax laa naa ko saral afaal li gën a bari ci jëm moom moo koy def waa na laa naka buur yàlla laysa bi salaamin déet muy tooñaa kon laysa bi salaamin déet muy boroom ak tooñ yàlla du tooñ lil abdi ñeel jaam yi nee na ñoom ka tax bi aali firaw na dañoo mel ne baaxu ñoom firaw na wala si ne ak ñi nga xam ne kafaroo weddi woon nañu min xablum ca la leen jëkk weddi nañu bàyyi ci lay ci alquran yàlla waaxa soon jàpp na leen laal bu yàlla bismillah bin ñi bismillah ma ni waxoon ne jàpp na leen bi maa xaddamata ay din mooy waaxa soon bismillah bin ci sababu seeni bakkaar su ne laa ni fi bu yàlla xawiyun ku dëgër la allah ma yurudu ci lim nam yàlla ku dëgër la ku am doole la ci lim lim nam li mu bëgg a def doole mën na ci sëkk sadidul iqaab ku tar mbugal la saalika lu doon yóbbee mbugal googu benn laa naka yàlla sabab benn laa naka yàlla lam yëppu maanaam asaf gi ma asaf noon gi moo di sukkoonam lam yëppu kaana moo fi nekkoon moo doon cosaan la mu indi yàppoon muy mu daari moom léegi nag lam yàppu lam bi dafa war a jësam ak mujjam mu asaf mu ne cet cet noonu nga aha mu dagg noonu nga nag lam yàppu lam yàppu mu xayiran yàlla kat du nekk di aji soppi nii ma tan xéewal an xam maa goo xam ne xéewal na ko ala xawmin ci aw nit yàlla du xéewal aw nit mukk ba yàgg mu jëkk-jëkk dindi xéewal ga xatta yu xayro ba mbata ñoom ñooy soppi maa di anfusi ndigal lañ leen digaloon ci diine ndigal lañ leen digaloon ci def lu baax buñ ko soppee nag yàlla soppi xatta yu xayro maa di anfusin wax na laa nit ki bur yàlla say noonu aji dëgg la alim la aji xam la mu baamtu ko kàdday bi aali firaw na naka baaxu ñoom firaw na wala si naag ñi nga xam ne kese boo weddi woon nañu kasaroo kasaboo gan la min xablihim ca la leen jëkk moo tax nu waxoon kasaroo tey mu ne kasaboo baya ci rabbihim seen kéemaani borom wa halak naa nu alal leen bi sunu diin ci seen i bàkkaar waa raq naa nu labal nag seen kilifa ga ba mu labalee ba mu labalee ñañ ña ba noppi nag mu labal ko moo tax mu ne aala firaw na labal na nitam ñi nee na rek kulum kum ci ñoom ñooñu nga xam ne xeet yooyu nga xam ne ay kàcc kat lañu ñoom ñëpp kaanoon nekk nañu ci kàcc yi ñu doon kàcc yàlla ñu ne ñu doon tooñ ñu ngi wàccoon ci fi Quraysh biir bànni Quraysh la inna sarra dawaa bi yàlla nee na ci kiyées ci mboolem luy dukkat ci kaw suuf inda laayi fi yàlla la ci ne mooy ñi nga xam ne këfaloo wedd nañu ay yéefar nañu toon ko ñoom laal la noonu du ñu gëm ba mukk la ci ne mooy ñi nga xam ne yow yonen xaaxante wala rënt nga minum ak ñoom na an laa yuhinoo musrikiina du ñu dimbali mukk musrikina ñoom dañ ne woon du ñu dimbali ñuy bokkaale ñuy jaamu xërëm màkka la gënoon a bare ñooñu yéefar yooyu nag ñu ni woon ñoo lërante yonent bi nekk nun day du ñu dimbali mukk musrikoon yi ci sa pour ñu di la ëpp doole du ñu ko def ba noppi nag ñu firi wala réer su ma topp nag yan xudoo nag ñu firi aadum seen wala rek fii kulli maratin fi bépp yoon bu ñu defee wala rek firi ko loolu te ñoom laa yaa taxoon du ñu ragal yàlla ci firi wala rek yàlla nee na yonent bu ngeen demee ci xeex yi te imma tasqasannahum boo xamante ni fekk ngeen leen ci xeex ngeen jàpp leen moo tax mu andi noonu tawkit pour maa ji ngeen di bu ngeen leen jàppee ima tasxasannahum bu ngeen leen jàppee ngeen fekk leen ci xeex ngeen jàpp leen seen arbi ci xeex fa sa rëdd na ngeen dëgëral njoñ la fa sa rëdd teqaleel ca njoñ li njoñ li ngeen di njoñ moo tax fa sa rëdd mu di ko firee faraq teqaleel fa sa rëdd maanaa na nga teqalee biim ca ñoom ñoo ñu ngeen jàpp di leen jëm man xalifoom da ngeen leen def loo xam ne ñu koy seen gannaaw dootuñu ñemee yëngu mooy fasori di biim man xalfahum maanaam duma yàlla ci ñooñu na nga leen ci xëbal na nga ci teqale ñooñu nga dëgëral njoñ li bu baax ba ñooñu nga xam ne man xalfahum kenn du fa yëngu ah kenn du fa yëngu laalu ndax ñoom sàkkaroo nañu waaw ci li ngeen leen def li ma taxaasan ndem ragal ragal ngeen min xaw min ci aw nit dangaa ragal ci aw nit xiyaanatan wóorut fii yoo lëre fan bi fi sànnil bu ñu séelëre firi ko sànnil yow itam fan bi fi sànnil wu lëre illa yéen jëm ci ñoom sàllaa salaam ci yamoo lu ñu def rek def ko bu ñu sànnee wu lëre yi sànnil wu lëre yi ne laa ni fi biir yàlla laa yu bëggul xaay ne na way wóorut yi wala taasiruna bul jottee Muhammad ni léegi na ñu nga xam ni këbëroo la dinañu dafay nasab ñaari mafool léegi na këbëroo mooy mafool mu jëkk ni sabaxoo mooy mafoolum ñaareel ni bul jott ni léegi na ñu nga xam ne këbëroo la dinañu bul yaakaar mukk ne sabaxoo raw nañu indiwum na ko ñoom laa ñu gisoona du ñu raw de du ñu nu lottal mukk du ñu raw du ñu raw du ñu raw de daañu leen jàpp de wa ahidoo préparé leen yéen jullit ñi lawum ñeel leen yéefar yooyu pour xeex na ngeen préparé masatatin lu ngeen man min quwatin ci kattan sàmmi na ngeen jàng fett na ngeen jàng fett ba man ko waaw na ngeen jàng fett ba man ko na ngeen jàng fett ba man ko waaye doo law mastata'tum min quwwatin ci kattan min aram yi moo tax jàng fekk lu yonent bi digle la ak jàng feey mooy jàng ngan jàng feey ak jàng war loolu yonent bi da ko daan digle aha moo tax mu ni tayit sport tayit mën naa mujj ci neen tayit mën naa mujj ci neen ba mu des sport bii nag moom mooy jàng fet jàng njam kooku bokkul ci sport neen jàng war yar sa fas ah Vous allez conduire les gamins.
déedéet ak sa soxna nee na ñetti po yooyu nga foog ñoom bokkul ci powum neen yàlla dala ji defal tuyaaba wa min ribaatil xayli ñuy takk naaru góor te ba boo ne ngeen di ko tiitale bii ci takk naaru góor yooyu addu wallaay noonu yàlla yi waddu kum koy seen noonu wa axarina ak ñeneen ñun doonihim ñu bokkule ñooñu ngeen xam ñooñu ay naafeq la ñu di ay yahud laa taalamoo noonu yàlla nee na yéen xamu leen leen wante allahu yàlla yaalamu yàlla moom xam na leen wa maa tunfiqoo lépp lu ngeen dund la min seen ci lu mu doon bi sabilillah ci yoonu yàlla yow ba ne matale ilaykum ci yéen moo tax yar fas ah pour di ko tukki tukki farata moom lañ naan farsu boo xam ne bi la farsu rahmaan yar fas nag pour jiyaati moo di farsu laa farsu yàlla farsu rahmaan ba tey fas yàlla yar fas pour tukkee rek ñetteel ba nag mooy farsu seytaan mooy fas woo wute xaalis wantum yéen laa tuslamoon a xamu leen leen du ngeen leen tooñ wantum yéen laa tuslamoon a deesu tooñ leen kenn du leen tooñ ci wàññi seenu yiw wala dolli seeni ñaawteef ñooñu nag naafeq yooyu nag leen jànnawoo ndem jàng nañu nag li selmi ne dañuy jubóo li selmi ñëw yéenal ga ah ku la ni kaay mu jubóo nag jubóolu foog naa jàngal laxaa ñeel yéenoo ga mu mujj ko man suuxal nag ci aaya jaas yi aaya xeex laa yooyu daa mu jëmam suuf yéen jànnoo li selmi foog nax laxaa wa tawakkal wakiilul allah laay ci yàlla inoo ni ki moom yàlla wooyu moom sàmmi waa ji dégg la alim waa ji xam la yooyu ñu doon dem na mën a an yax dangoo ko ñoom naa feq yooyu dañ la bëgg a wor an yax dangoo ko ñu seen jànnoo li sëñ fañ naa la déedéet dañ laa bëgg a wor an yax dangoo ko du sul nee na buñ la wara it fa inna hasbaka ni ki doy na la ni ki doy na la laahu yàlla woo moom la si mooy ka nga xam ne ayat dafa dëgëral na la bi nasri ci ndimbalam wa bil muminina way gëm ñi yàlla itam doy na la wa allafa tàppe na bay na xulóobim diggante seeni xol yoo xam ne juboo nañu juboo koo xam ne boo joxe woon addunaa gi ci biiram pour jubale leen yow kese mënoo ko lawaan fàqata doon te dund la nga maa ci loolu mboolem alal ci adduna jàmmeen doole naa alal ko mënoo woon a tàppe bay na xulóobim seeni xol mu juboo walakin li fi ne laaha yàlla moom ci dooleem allafa tàppe na bay na mu seen diggante muy diggante law soog xas rek inna woon ki moom yàlla azizun aji not la ak mun aji attak dëgg la yaa nabi yow yonent yow laay waxal xasbuka doy na la na la doy laahu yàlla xasbuka doy na la laahu yàlla yàlla doy doy na la wa xasbuka doy na la it man ka nga xam ne ittabaxaka topp na la minal mu'minina ci ñu gëm yàlla yàlla doy na la ak ñu gëm yàlla ñoom la doy na la aha ñëpp dañ naan asbuna allah yonent yëpp asbuna doy nanu laahu yàlla moom mun ko doy naa la doy naa la moo gën a foor doy doy nanu aha doy naa la moo gën a foor moo gën a wóor ah doy na la asbuka doy na la laahu yàlla wa man min tabaaka wa asbuka doy na la it man min tabaaka min almuminin yaa nabi yow yonent aril ñaaxal na ngeen wax na nga wax jullit ñi na ngeen jóg xeexe góorgóorlu leen ñaaxal muminina way gëm ñi anil xitaali alal xitaali kon ca xeex xeex ak yéefar yi te nga xamal leen ni wax leen lu dalum xel li ma leen defal in yakun ndem nekk na aha isruuna ñaar fukk saabiroona yu muñ minkum ci yéen ñaar fukk ñu muñ ci jullit ñi wax li boo mën nañoo duma daañu nag mi atay ni ñaari téeméeri yéefar ñaar fukk yu nag bu saa yu ngeen amee mësër ci ñaar fukk dem leen xeex in yakun ndem nekk na mi atum téeméer minkum ci yéen jullit ñi yaxli boo daañu nekk junni yaxli boo daañu mën a duma daañu not alfa junni téeméer bu nekk mën naa not junni kam min fi atin xalilatin xalabat fi atan kasiratan bi isnillahi wallahu ma asabirin baqara ah min allazina te daañu nga xam ne kafaroo ay yéefar lañu beneen ci naka ñoom xawmun aw nit lañu laa yafqahuna du dégg diine tekki wuñu dara yàlla nee na léegi nag laana léegi nag xasasa woyofal na laaw bur yàlla ankum ci yéen laana xasasa laaw ankum waa li ma xam ne ni ana fiikum nekk na ci yéen ah dum fën ku lompañ wala ku wéradi an qitaali asrata ansaarikum pour téeméer rek dem di song junni léegi ne woyofala nañ leen loolu waaw léegi daal feen yakun ndem nekk na minkum ci yéen miatum téeméer saayirikum bu muñ yaxli boo nañu songi rek miatee ni ñaari téeméer ah
ndax daal parce que yow wàññi ko wala.
Wa- doole ji moom.
ah déedéet day ñëw ko dum fan léegi xam na ni léegi ah xéewal ñëw na woyofal nañu woyofal nañu affaire bi rek waaye seen pas-pas wàññeeku tekkeeku seen pas-pas wàññeeku ba leen a woyofalal léegi rek waaw maanaam mbooloo mi dafa gën a bari kon nag ñu ngi yokk nag.
waaw jullit ñi yokk nañu yéefar yi wàññi ko nañu Wàññi ko.
parce que lu yokk ci jullit ñi wàññi ko na ci yéefar yi waaw jërëjëf.
loolu moo tax automatique la lu wàññi lu ci fee rek mën nga fale miatun yaxlibu alfan min alladina kafaru passé nañu foofu waa na fiikum waa lima na fiikum dum fan ah an qitaali asharati amsaalikum fa in yakun minkum miatun léegi yaxlibu miatayni léegi wa in yakun dem nekk na minkum ci yéen alfun junni yaxlibu alfayni léegi daal téeméer nañu songu ñaari téeméer junni nañu songu ñaari junni waaye bokkul ak téeméer junni loolaa gën a metti ñaar fukk songi téeméer lii nag moom man ñoo ko bëgg dafay def.
de déedéet déedéet dina ko gën a ñu ne yéefa yéen yakun minkum alfun yaxlibu alfayni aha bismillahi nag ci ndigalu yàlla ci ndigalu yàlla nag ndimbalal yàlla wallaahu buur yàlla maa saabirina ndimbalu yàlla ànd naag way muñ ñu ni wa nasara lama lama xasoo fi daaw min al asra badar maakaana li ñuy bëgg a wax nekkul li nabi ñeel yonent an tàkkoona bu nekkat loo ñeel ko asra ak njafeel atta yus na ma bata mu notee ci lalu ko suusi yonent nag ah waru ñoo dem nag di seddoom koom ak i defi yëpp te notaguñu atta yus na fi lalu nga xam ni yëfar yi rey nañ leen dee nañ xanaa yoon xare bi mokkagul tur yi doon a ngeen dem di namm yéen jullit ñi alal dunya aha alali adduna wallaahu bur yàlla yuridu namm na moom laaxirata laaxira wallaahu bur yàlla ay sun aji not la ak moom aji attak dëgg lii nag man suux na ci fa imma mannan baxdu wa imma ko daal yàlla nee na lawlaa kitaabun bu dul konte ab téere mi ne lay tudd yabaay ko ci yàlla sabaxa boo xam ne bi jiital na muy daganal koom mi ak ñi ñu jàpp la masakum kon dana leen laal asaabun mbugal asimun mu rëy fi naaxasum ci li ngeen jël ci li ngeen jël ci xànnima bi li ngeen jël ci xànnima bi moo tax bañ ko defee ba noppi si naawmar ñëw fekk yonent bi di jooy moog Babacar kenn ku nekk diggu wante naa sa morom ñu jooy jooy yu metti si naaw man ne wax leen ma lu ngeen di jooy su fekkee ne mën na maa jooy bàkkaytu ma jooy ni ngeen di jooyee bu fekkente ne mënumaa jooy nag sabakaytu ma jooy jooyul bañ jàppee bañ leen jàppee yonent bi woo leen ñu def benn réunion mu ne lu ngeen xam ci suñu mbokk yi léegi jàpp nañ leen lu ngeen ci xam am ko ni li ma ci xam signaalu nañ ko boole diw diw ñu boole ko diw jox ko jaasi mu rey leen ndax suñuy noonu lañu bu ñu jokkoon dañ ñu rey ñu laaj keneen mu ne nañ leen laaj njot alal ji ñu leen laaj ñu dimbandikoo ko ci xare bi te bàyyi leen ku ci amul dara nag ah comme mën nañoo bind nga jàngale xale yu ndaw yi nga jàngale fukki at nga jàngale fukki at ñu soog laa bàyyi seetal jàngale ni maami foofu maana jàngale fukki at ñuy set ñuy set ñuy set njot ah ibnu rawaa ñu laaj ko mu ne moom daal li ma xam nañ seet xur yu bari matta ko ñax ñu dugal leen ci ba ñëpp dugg ñu taal ko ah yàlla nag yedd leen nag ci laaj njot gi nag te fekk booba xare ba def ñu ñu laaj kenn ku nekk njot abbas nag moo ci ëppoon luñ ko laaj moom téeméer lañ ko laajoon ooxiya ñaari doom yi nga àndal ku nekk ñeent fukki ooxiya muy muy juróom ñett fukki ooxiya ah muy téeméer ak juróom benn fukk ñu laaj ko itam ñaar fukk yi nga xam yi nga xam ne moom la yóbbaloo woon pour xare bi ñu ne ko danga ko ciy boole muy téeméeri ooxee ak juróom ñett mun nag loolu du ko joxe ah ñu ne ko nag kon dañ lay téye góor gi abbas nag ñu yeew ko te fekk yonent nee na woon na ngeen na ngeen jéggal biir bànni Asim ci xare bi ku ci jékku biir bànni Asim nañ ko bàyyi Seydina Omar ne ko du mu rey suñuy bàyyi bàyyi fi suy bàyyi loolu duñ ko def dégg nga dañuy rey ñëpp rek duñ ko def kat duñ ko laal dara
ñëpp rek wala dara bay li ñëw ci góor bàyyi Abbas yeneen ci dikk ni bàyyi Abbas cee nga jébbalu wala nga joxe njot gi bàyyi Abbas man mënumaa naafil la mënumaa julli ndax sa wonk yi mu ne ko aw ma dara mu ne ko ah kay bàyyi Abbas ba ngay dem umul fadli defe naa sa soxna sa jabar ba nga koy dénk ne ko bu ma ñëw wurus yi yow la ak sa sama doom yi mu ne ko ma sama doom ku la wax lii ca xaaju guddi mu ne ko yàlla yebal jibril mu wax ma ko mu ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad dama doo tax abbas jébbalu abbas looloo ko tax a jébbalu ah jébbalu rek bàyyi yeew ak duma ana la dunya bàyyi abbas ak ñëpp a ci yem wallaahu bur yàlla yuridu na mun a axirata alaaxira wallaahu bur yàlla ay sun aji mat la ak sumum ajaate dëgg la lawlaa kitaabun min allaahi sabaqa la masakum fii ma axastum ci la ngeen jàpp asaabun asimun te kulloo lekk leen léegi nag mi ma xamantum ci la ngeen jàppee ci jéefari li ngeen woomloo xalaalan dagan na tayiban neex na teey na wa taqoo ragal leen nag laa yàlla ina laa nekk bur yàlla xafoorun ko sufeel jaamam la reyam ko taqoo yërmande la yaa nabi yow yonent xul waxal li men fi ay diikum ñu ngi seeni loxo minal asra moo li def minal asara ñi ci seeni loxo
Ce meeting a appelé
fa am kana yàlla jàppandal yàlla nekkal minum ci ñoom xatlan waasiran yàlla yombalal leen ngeen rey juróom-ñaar fukk jàpp juróom-ñaar fukk ca badal ak alal ju dul jeex wallaahu bur yàlla alimun xam na ak mu ajaate dëgg la ina la ci ñu ni ki gaañu nga xam ne amanoo gëm nañu waajaroo te ñu nangoo gàddaay wa jaadoo ñu nangoo jiyaat bi amwaalin ànd ak seeni alal aha wa anfusihim ak seen bakkan yi bopp lañ yóbbu fi sabilillah ci yoonu yàlla mu ban si na ak gaañu nga xam ne aawaw tàpp si nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa nasaroo sañu dimbali ñooñaa ñan mooy waa lamsaar wala si na aawo wa nasaroo xam nga ñoom waa lamsaar dañ daan jóge ca madina di fekk si yonent bi ca makka guddi di jébbalu ndànk ndànk juróom benn jëkk a ñëw ah fukk ak ñaar ñu ñëwaat gannaaw bi juróom ñaar fukk ñëw ak ñett moo tax sëriñ ba ne waaw lagal axbatil ula wa baxdu yabdu wa baadaha jaahu simtaani bil jalami xilaasu saaq di wax siira siira ah moog sunna ñooyam mooy di wax jukkay yonent bi wax ci siira ak wax ci sunna ñooyam ah waawun la dal aqbatil ula juróom benn jëkk a ñëw te aqaba bu jëkk ba muy at mu jëkk ma wa baadu te déen sa gannaaw ga nag yàbbu ñëw ah li tax yàbbu ñëw waaw ñu ngi ci biir yàggul juróom benn ñu ñëwoon ca daaw sax dañoo ànd ak ñeneen juróom benn ñu dikk ci déwén sa muy yàggul Mhm. Mhm. ne déglu benn waaye mu ne waawun juróom benn ak yàbbul fukk ak ñaar ñu fukk ak juróom ñett mu ne ah bu tëwul tànk bi daanu de sañ bi waxul lool de sañ bi daa ardu sene de waaw nañ ci biir yàbbul xaw sew nag waxi mag neexu la waxi mag neexu la neexu la xam nga ko mag mag mu jàng waxi mag wàllu wu jàng nag yàlla na ko yeewu jiwari
ah maa la ko wax de in ya'lam illahu bi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma uqisa minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurun rahim in yuridu an yaq- in yuridu qiyanatan aha faqad khana la min qabl fa amkanna minhum foofu lañ nekkoon walaw alimun hakimun إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا من الأنصار أولئك يوم بعلوم لأن في يوم